wala alamul xayba trésoru yàlla yi awma ci dara waaye sëriñ bi léegi soo demee mu defal la kii ne la soo demee daa am daa am nangam nangam daa am nangam nangam Cheikh Al Hadj suñu sëriñ suñu maam nee na sëriñ bi toog naan yow kaay soo ma joxee fukki junni ma jox la tur woo xam ne soo ko sikkaree am ñaar am fanweeri junni nee na da nee ko bàyyi te nga defal ko sa bopp ma seet nee na la plupart ka la koy wax mbubbam dafay ràpp daggat kon boog sunanullahi allati lan tajida fiha tabdilan aw taxawulan aw taxayuran moo di nit ku nekk dafa war a jaar mbir fam ko war a jaaree suñu ñaari maam yooyu daal xam-xam kenn rawu ragal yàlla kenn jotu leen ca waaw wëlbatikul àdduna li ñu am bokk koog jaamu yàlla yi kenn rawu leen ca kon boog ndaw tey su ñu bëggee yàlla defal leen sutura senegal kat yi fi xew crise bi ñuy traversé léegi su fekkoon ne du diine ak koo wax mu ne yàlla baax na ah, baat bi tuuti na waaye am na solo après élection yi su dul woon ñaanu mag ñu baax ñooñu le ak diine bu dëkk ci xol yi la xew Burundi dana fi xew la xew ci yeneen société dana fi xew kon boog si boobu bi ñu sooy ba amoon ñu ko dëgg la yàlla la xamuloo yàlla la mais yàlla wàccul def dara yàlla lu mu def rek dafa am ay nit ñu ma ko jaarale walaw walaw laa dafau llahi nnaasa baadahum bi baad la fasadati l ard aw lahu dima sawaamiu wa biyaun wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha smullahi kasiran wala yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha la qawiyun aziz yàlla nee na cëpp cëpp gis daf ma soob moo tax ñi ñi ñi ñi ñi traversé adduna ñu di leen tàccu di leen tàccu ñuy yëngali mbagg nañ ma ca bàyyi xel ana Senghor ana Senghor ana Blaise Diagne ana Ngalandou Diouf ana Gouks kenn gisatul seen i bàmmeel waaye maam Serigne Touba ba léegi oto yaa ngi rang di dem Touba da defee ne pexe la wala kessé kessé li Serigne Cheikh Tidiane si di wax kessé kessé du kessé kessé mam Cheikh Alxaaji Malick oto yaa ngi fiil di dem ba léegi maam Alaaji Ablaye Ñas ca kaw la ak fenen ak fenen di dem nimsat di dem fu ne loolu xamuloo mbiru yàlla la te kat ki xex mag ñu baax ñooñu di xex sëriñ ci sëriñ Cheikh nee bu len ci kenn nak jógal ma tok rek la jógal ma tok ndax principe bi nga gëm idéologie bi nga gëm bay xeex ñooñu xamuloo tarixa la pour yow tarixa mooy doctrine rek façon loo gëm te tarixa bi neewuñu nga jaamu sëriñ bi astaghfirullah ci alquran karim istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursil sama alaykum midrara la ilaha illa allah اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا ولا إله إلا صلاة على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيرفيس بو خامن يالا موكو جيك جوخيتي موكو جيك ديف ان الله وملائكته كون بوك يين سوغن كو ديفول دوما سات الله اكبر سوكو ديفي كون ني خيخ طريقه دا نيو دوف ريك ناخ لا نيو تاخاو باي خيخ طريقه طريقه لا بور نيوم لي بون كاني لي بون كاني موي جير الله جي مالك جاولي كوك يالا دو دغ جير مام سيرن توبا جاولي كوك يالا ولا يونتي بي دو دغ فاناتيزم بوبو لا نيو باغ te koku ku def da ngay nek ab dof bo xamne do construire da ngay détruire té lolou suñ ko topé dana dem ba yobbu réew mi ko xamne dañuy rayante ci suñu biir dana may doole it ane yeneen force ak yeneen idéologie yi nga xam ne ñu ngi combattre l'islam am na ñoo xam ne seen bëgg-bëgg tey te mi ngi dox ci réew mi ah moo di xeex tariqa yi moo di xeex Touba moo di xeex Tiwaawan moo di xeex Njaasaan moo di xeex Ñaseen moo di xeex fu mu mën a doon am na ñoo xam ne loolu mooy seen méthode mooy seen système te kat ñun ñëpp ñoo bokk laa ilaha illallah kon kañ nañ jéem a seet naka la ñuy defe dialogue naka la ñuy waxtaane ba juboo am système am méthode boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci ànd di ko liggéey liggéey suñu réew baatu l'islam jóg église bi kat du affaire affaire euh, intolérance religieuse du affaire u bañ a bañ yeneen diine mais catholique ñoom ñu ngi ñu ngi ngi liggéey bu njëkk ñu ngi yemoon ci mbuur Petite Côte la ñu yemoon ak ndarak yooyu mais léegi catholique ñu nga ca biir Malem Odar ñu nga ca biir Saloum ñu nga ca biir Fuuta pour xeex déstabiliser l'islam am na benn benn bareegul

buub si buub si buub si si wala buub si kan wala ndaw ñu ñëw di di di kii naan Sénégal di wax Sénégal ndax Amérique lañ leen di jàngal ñu jëm Casamance Mandeng la ñuy jàng ak Joola ak yeneen làng jalet ñu jëm ñu jëm wolof ci wolof yi su dee waalo waalo dañu leen di jàngal waxinu waalo waalo su dee lébu waxinu lébu lébu ñu sol nag seen mbubb ñu ne leen dem leen nag Sénégal ndax métissage culturel bi ngeen déggoon di ko wax fu mu toll métissage culturel boobu ci façon yi la waaw nañ intégré wu ci seen biir mais nag bu ñu wax affaire diine nañ préparé terrain bi ba nga xam ne ku ci nekk dangay ngay gis américain bi mu sol ndoket sér ñu naan man ci sama gan la waaye kii daal ñuy baax yow américain yi di la nax di la nax suñu leen ne dem leen ba ba ngeen mujj nekk ay idéal ñu di leen roy ngeen rocciku ñu indi leen église bi ñoom ñu def leen ay catholique loolu ngi dox mais su fekkee ne nag loolu dafa am ci sëriñ bi su toogee li muy wax moo di na ma taalibe yi fekk si na ma taalibe yi kii mais cause bi doo ci wax dara soo wéetee tijaan du ci wax dara soo wéetee murid bi du ci wax dara soo wéetee ku ci nekk rek naan mana mana mana mana mana mana mais ñu bàyyi l'islam cheikh cheikh alhaji alhaji omarul fouti radiallahu taala anu nee na woon man man cheikh omar da jaaxle na li kulli qatilin naihatun yanoxnahu wa laysa li dinillahi fi lxayi naihu ida kana ma bil bilkaffi dinun fa kasidun wa in zida raun bada maddin fa rabihu cheikh omarul fouti nee na kii jaaxle man may omar al fouti sama jaasi ji ma yun ma ma yëkkati waaw saxal lislaam dindi fi affaire caaxaan dindi fi xërëm xeex naa ba wóor na ma ne maa ngi waaj a dajeeg sama borom waaye yëg naa ni rek ku ci nekk ka nga deele yaa ngi taxaw ci boppam di jooy wallu ngir ku ñëw fayul la ba mu des diine diine ngi ne làcc ci ëpp Sénégal te kenn jooyalu ko ndax Cheikh El Hadj Omar nee diine moo di diin deel yaa nuun nee diine moom mi ngi dina làcc kenn jooyalu ko waaye soo ci dee nuun soo ci boolee livre ak raa rek muy dinaar alal alal moom ñëpp ngi xëy di ko wut xool leen léegi Sénégal koo gis projet projet projet mu xaw neex ci xol da xëy rek gàddu say sàkk projet ba guddi nga ñëw tëdd nelaw ba kii doo tal sax julli fajar demaat ci bureau yi di yéege ko wàcc du sotti moo tax li naan yitte yi du yitte yi la moo tax onkaat ba ñu fi tasee ma ne onkaat waaw dëgg la ñu ñëpp onk nañu ba dee bañ ko tasee ne sonaar ma ne du sonaar sonnaat waaw sonnaat Sonatel ñu kii ko ne dañuy am ay chantier yu ñuy def pour yokk téléphone yi nangam nangam ay marché milliards ñu loo ko sàcc ma ne du du Sonatel sonnatil waaw yow yow yow yow yow paysan bi sonnatil sonnatil du son Sonatel sonnatil su ko defee loolu li koy dindi moo di doomu kilifa yi di ko wax mais man Maodo si lii ma wax man contre ma gouvernement contre ma dara waaye su fekkee ne ku ci nekk da nga ne du ma wax du ma wax li nga xam ne tiijaan yaa ngi koy def te awul yoon kilifa murid gi toll ci man jamono ñu bokk jamono mu ne du ma wax li nga xam ne lenn tu murid da nga koy def te awul yoon <clears throat> li ma seet daal moo di addiyee buñ ma jox gis nga ki nga xam ne nit ñi dañ ko yaakaar ngir yàlla xol yi la war a soxla waaye warul soxla poche yi waaw ndax xaalis bi dafay jeex xaalis bi dafay jeex te sëriñ wala ku ñu naan ma nga nale ma nga nale dara gënu ko diis koo xam ne soo ñëwee ci mbooloo mi ñu xàllal la yoon bi jox la ñaari loxo làmb seen poos jox la euh, kuy def luñ la jox nga lekk ko daa lekk safara ndax koo xam ne soo génnee ñu ne kële sëtu suñ Tuubaa la ñu xalangu ci suuf jox la poos nga ne sëtu Alaaji Maalik ñu def la daa gis mag moo xam ne lam la jox la naroon lekk ji tey te kat mag moomu lay jox loolu moo la gën a ragal yàlla yow sëtu sëñ Tuubaa wala sëtu Alaaji Maalik la muy toog ci der di sikkar doo ko def waxtu muy dem fajar di julli jàkk doo ko def mais yàlla soob na rek nga jóge ci ñu baax te ku ci baax su góorgóorlu rek baax ku jóge ci ku baax su góorgóorloo tuuti rek baax wa kaana abuhuma salihan salahu salahu alabai yasri lil ahfadi wal wal wal abna waaw waaye li bon kañ moo di jóge ci ñu baax ba pare rek fa xalafa min baadihim xalfun adaau salata wattabau shahawati fa sawfa yalqawna xayya yàlla dafa tudd ibrahim tudd idris tudd yaxya tudd zakaria ne gaa ñu baax ñaangoog de waaye cëm cëm ñu leen fi remplacé cëm ñi leen fi remplacé waaw ndax yow taalibi bu fekkee dafa ñëw di yàlla ci yow te moo la gën a ragal yàlla yow yaa ngi ba daañu ci biir xolu jigéen ñi waaw waxtu julli su jotee da ngay feex feex lu toog ba mu neex la rek nga soog a këpp këppal julli te yow kii lay jox addi gënuloo ko ndax deret du gën deret waaw yonent bi nee na xaw ma ban ëtt xaw ma ban peñ waaye ba lislaam ñëwee askan jóge na fi li mu xam moo di ku ragal yàlla inna akramakum inda allahi waxul ñerteenukum wala laayeenukum wala tiwaawanukum wala tubaakum déedéet atqaakum inna akramakum inda allahi atqaakum su ko defee kon nañ jox yàlla suñu bopp te nag mag ñu baax ñi ñu am ñu téye leen suñu fukk loxo sëñ tubaakat gàcce ngalaama bind na bàyyi fi jëf na ñu gis woy na def na lu nekk bàyyi ma nga ca aljanna yàlla di ko fay Cheikh Al Hadj bind na bàyyi fi def na bàyyi fi wax nañu gis wax nañu dégg jëf nañu gis ma nga ci aljana yàlla di ko fay léegi ñun responsabilité bi ñun ñi la ñun ñu sant Mbàkke ak ñu sant si ñoo war a joxe ay exemple ñoo war a donner exemple ci njub exemple ci bëgg yàlla exemple ci dëddu àdduna dëddu àdduna du du bañ a liggéey waaye moo di lu gor di bañ bañ ko buñ la jënd ak ak ak chèque buñ la jënd ak ay ay ay ay licence warga wala pomme de terre wala leneen lu mu mën a doon dëgg la citoyen nga nit ñëpp nag nit ñëpp di amee yitte ci gouvernement bi doxal ndax réew mi ñoo ko bokk waaye nag bul nangu kenn jënd la ba nga xam ne cause bu ñu bëgg a kii rek ñu ne la sëriñ bi jox la micro bi ne la waxal nga wax ngay monnaie l'islam di jongle te su buum bi dogee rek yaay daanu su ko defee kon yal na yàlla li leer suñu way jur yu baax yooyu la kilifa yi diine yi ci réew mi yal na leen ci yàlla yàggal te kat kilifa mënu la ñàkk soo demee ci église bi ay kilifa nga fa soo demee ci kër ci ci organisme bu mu mën a doon rek. nee naa a wax. waaw yu nga woy Serigne Touba waaw ma nag boobu dañu nekk ci keer tabarakallahu ñun famille diine yëpp di fa jàng. soo demee Niassène ñu nga fa soo demee Mbacke ñu nga fa soo demee ci Tiwaawan ñu nga fa ñëpp nekk fa te it yàlla dogal te it yàlla dogal am benn benn yoo xam ne dëgg la l'islam santul si l'islam santul taal l'islam santul Mbacke santul sax ay dara ala lillahi diinu alxaalisu yàlla nee na diine su amee sant moo di sell waaye nag yàlla dogal na yàlla dogal na rek yonent bi ñu àndoon ak ñoom bari nañu xamuloo ëpp na téeméeri junni saxaaba mais du ñëpp la ñu dégg ñañu dégg yi du ñëpp yam dëgg rek lu waral Aboubacar Omar Ousmane Aliou nga xam Mus'ab ibnu Umayr a ngi fi ci ngand yi la bokk nga xam Muaad ibnu Jabal a ngi fi ci ngand yi la bokk nga xam Abu Moussa al Ash'ari mi ngi fi katabatul waxyi Zayd ibnu Sabit Muawiyat ibnu Abi Sufyan ñooñu ñëpp ñu ngi fi waaye rek soob na yàlla ñoo ñooñu daal ñoo sës rek ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ndegam Aboubacar Sadiq rek moom moo dee moo dee ci lalu lee waaye Omar dañ ko boom julli fajar la ñuy dem muy muy defar sàppe yi ci Madina war yonent baa ngi tëdd di soog a dee yaramam sax seddagul ci biir bàmmeel ñu ñëw jam ko ñetti jam-jam ci biir bi moom Omar ibnul Xattaab mu ne ah saay saay bi jam na ma saay bi jam na ñu téye ko génne ko am keneen ku taxaw ndax nak duñu jamu nit yàlla lañu jamu jaamu te yàlla moom moom waxtu bi ab omar suñ ko jame keneen nag bismillah doxal julli def joxe len seen farata la omar waxo la abou bakr waxoon wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala ينقلب falan yadur allah shay'an wa شيئا allah shakirin omar ibn al-khattab dem ni na ngeen ma set su fekke ne xawa def ci war fayu na ngeen ko def mais nak qisas bi modi nat ngeen nat jam-jam yi nu mu toll ngeen defe Ousmane ibn Affan Omar Dieng Ousmane wuutu ko di di ñaareelu di ñetteelu xalifa rasulullah denc ñaari doomu rasulullah moom nu mu def dañu ko encercler këram waa Kuufa ñëw <clears throat> waa Basra ñëw am ñu jóge Égypte ñu encercler këram lu war a mat fukki bés ak ñàngam dañu dañu cëppeelu ci biir kër gi rendi Ousmane ibn Affan toog ci dëndam rendi ko Ali ibn Abi Talib genn waaru diine ci bokk ak yonent bi bàyyi yonent bi yar ko masul su jootal xëy na moom Ali ibn Abi Talib bàyyam ak bàyyi yonent bi bokk ndey ak bàyyi Abdullahi génn àdduna lu jiitu yonent bi di judd Abu Talib yar ko gannaaw ba ko Abdul Muttalib yore ba génn àdduna bi yonent bi toll ci juróom-ñetteel Abu Talib yar ko bàyyi bàyyi Ali ibn Abi Talib waaye Ali ibn Abi Talib moomu moo wuutu woon yonent bi ca néegam bés ba muy gàddaay ak darajaam ak maqaamaam ak lépp dañ ko ren dañ ko dóor jaati rey dañ ko tëru fekk saay-saay yi def nañu benn benn kalam boo xam ne nee ñu tey daañu rey Muawiya Abu Musa al-Ash'ari daañu rey Ali Ali génn di woote as-salaatu jaami'a as-salaatu jaami'a jóg leen ci julli fajar ay wa waaj leen ñu dóor ko benn jaasi dóor ko caw ko ci bopp mu ne fustu wa rabbil kaaba texe naa li laa doon wut foofu la dee mooy kon kañ la l'islam ma sa neex waaye ñun nag suñu defee nag lu ñu leen ñu ne ah, yàlla baax na eh, yàlla yàlla du ko seetaan baax na yàlla du ko seetaan baax na di ko wax rek di ko wax rek am ñeneen ñu fi nekk ay club fi ay association ngi fi ñoo xam ne seen liggéey corps de la paix ak USAID euh, ñu ñu américains yore fii ci suñu biir di liggéey rek li ñu bëgg rek moo di affaiblir euh, euh, jullit ñi moom su ko defee def ay kuréel waaw murit bi ne man duma ma joteeg tijaan dara tijaan bi ne man du ma joteeg murit bi dara xaadi bi wax ko dem nañu ba ci biir tariqa tijaan ñu ne waa Tiwaawan waa Ñaseen waa Canaba waa Madina Gunaas teqale waaw ba loolu pare nag ñu di ñu nax nag ñoom tubaab ñi def ay ay généraux xalif général xalif général pour teg xalif lan mooy xalif général wax leen ma ko lan mooy xalif général yooyu yëpp seen méthode la seen système la xalif général di fi léegi muus sax su muus dee sax ñu ne muus lii mooy xalif général muus c'est ça dafa dem ba day perdre ba doo xam lu muy niru loolu pour teqaleel ñun amuñu ay généraux ñun ay jullit la ñu am ay ay machaïx la ñu am ay sëriñ ahlullahi al arifuna billah waaye yooyu yëpp pour teqale la il faut yooyu ñu di ko xam su ki jotee wala ko ku sëriñ bu nekk soo doon ñetti mbooloo nga am tax ñu jox la rajo bi wax a wax a wax ñu ñu teg ko ci dix heures ba minuit julli yi lañ tey nag ñu ngi leen di indi nag léegi julli nangam te nag sous préfet wala préfet ne la waaw sëriñ bi yow de say taali bi rek a fay seen impôt te laaw jiwu say taali bi rek ko fay nga ne waaw waaw ñu ne ah, moom kay nag su dul woon moom dem wax ko keneen yaa ñaanoon mu taw yow de su dul woon sa ñaan gi kii du taw kale wax ko kale wax ko kale mu tax ñu doroge la ngay nelaw rek taalibe bu nekk dafa bëggul dégg lu neex ci sëriñam kale ne mën ñu wéetal kale ne ko yow a su du woon yow sallaaw yow yaa kii su préfet ñoom nga xam nañu seen mission waaw sallaaw sëriñ bi nag ñu dolli ñaan ndax sa ñaan daal moo tax kii yow nga daal di fàtte yàlla moo tax Cheikh Alhaji Abdoul Aziz yal na yàlla yàggal ko ci jamono at ma soobee yàlla mu yabal ñu fekk président Senghor nekk Iran mu woolu ma ak Souley Dramé yal na yàlla dolli ko leer ne ma dama bëgg nga demal ma ci Abdou Diouf boobu mooy premier ministre 1978 nga ne ko maa ngi koy ñaan nañ tëj baar yépp nañ tëj cinéma yépp nañ tëj bistro yépp bu tëgg jib bu sabar jib bu dara jib ñu ñaan ndax yàlla indi ndoxu jàmm ndax kat maral bi metti na ne ma soo fa jógee nanga dem ci Jean Collin ministre de l'intérieur nga wax ko soo fa jógee na nga dem ci monseigneur Thiandoum ci route de Wakam nga gis ko ne ko Abdoul Aziz sama papa moo ma yónni nee na yàlla moo bind ñëpp waaw catholique bi yàlla ko moom kenn moomu ko xam ne Cheikh Al Hadj Abdoulaye yàgg liggéey du li ma jur a tax ah, li la su ma jurul woon am na jikko bi du li ma jur a tax su ko defee nañ ñaan ma wax ko Abdou Abdou ne kooku daal Maodo dañ koy def président nekk waaye dañu ko décrété Jean Collin dana ko appliqué ñu gis ministre d'État Jean Collin mu mu kontaan ci fekk na fi ñu bari su ko ñëpp fekkewul ñu da góor gi nag ñu jox ko rajo bi indi ko mu waxtaan dañu teg rajo bi waxtaan wi ci 10 heures mooy ci ci 9 heures 20 lañ ko teg 10 heures mooy yoon fekk asamaan sotti ko mais Sénégal yëpp a taw nit ñi bëgg ne Abdou Aziz Abdou Aziz julli kori ga ñëw dafa jooy ne bu ma kenn tudd nañ tudd yàlla Abdou amul taw Abdou moomul taw Abdou moomul yàlla Abdou amul ndox ndox sax su ma ko bëggee dama naan Ablaye may may ma ndox ci satala gi wala may ma weeru ndox ma naan fu ma moomee ndox أفرأيتم, ما ت... أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزء أم نحن المنزلون moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi xam yàlla daawul xeeb dara kaasu ndox sax su ko jëlee naan ba pare téye ko moom yonent bi ne alhamdulillahi alladi ja'alahu azban furatan wa lam yaj'alhu malihan ujajan bi dunubina yow yàlla wallahi maa ngi lay kañ di la bàkk di la sant ndax ndox mi kat su du woon sa mbaax mu wex xat ndax ndax ndax li ñu indi ci bakkar waaye yaa ngi ko bàyyi ba léegi rek muy neex di tem temteme ci bout alhamdulilahi rabbil alamin loolu loolu mooy xam yàlla cheikh al alxaajab la ne nañ corriger mbir mi waaw moomu ma taw te kilifa diine noonu la war a def yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa am ku ñu naan ousmane ibnu madroun ci sahabati kaane min ajillati sahabati ridwanullahi alayhim ajmain lama tuwufiya wa xumila wa xumilat janazatuhu الى الى الى الى, إلى المقابر الى البقيع داليكو سول صحابه دانيو دلوسي كونتان كوشي نيك دي واخ نان عثمان nga الجنه كو نيك دي جوخانتي لوخو كو نيك دي جوخانتي لوخو بيت نان هني ان له بالجنه هني له بمقعد صدق الذي سيحظى به عند ربه عند ملك مقتدر يالا ديغ واخ جي ني يونتي بي كوريجي لولو يو محمد تخاملو خاملو ناخ دا ديم الجنه ولا ديت قل جبريل دال ني تيب اندي القران قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي يالله دفا فير يو يلنت بي لولو ني نان ماغا الجنة بوما كين جيف يو محمد صلى الله عليه وسلم ياغي دون خماغو ناخ دا ديم الجنة ولا ديت كون بوك ньоญو ني لولو ني دي ديغ ناكو مان يالله كوريتيكو نيلن كوكو دي سين دومين نانكو باي مي لولو سام باب شيخ الحاج عبد الله توجور مو ني نويت بي بت سيبينا جي نانيو nawet jeexagul jiw raadooguñu ñu dara ngay ko pañante ci penc mi naan maa lay ëpp gerte nee na teel na nit leen ba mbay mi sotti ndax wang yaa ngi fi criquet yaa ngi fi waaw dara sotteegu su ko defee kooku ñun ñëpp nañ ko bàyyi xel nañ bëgg yàlla nañu taxoo julli juróom te julli juróom nañ koy def ni ko yàlla bëgge kenn du tiim ci tappi am na ñuy tiim ci tappi ñëw rek rëpp sa loxo kenn du tiim ci tappi kenn du tiim ci ci ci kenn du tiim ci miir saidan tahiran fa tayamamu saidan tayiba na ngeen tiim ci pakk suuf su laat te set wala ngeen jël doju tiimu wala ngeen tiim ci miir bo birig boo xam ne laso bi togg guñ ko jaxasuñ ko laso ba ñu togg ko sooy tiimit da nga war a summi sa jaaro su fekkee ne sa jaaro du yëngatu bu baax da nga koy tekki tekki sa montar waaye am na ndaw kundaa yoo xam ne dañuy ñëw rek xamuñu sax ni ñuy tiimee sooy tiime ci dojit doj bi doo ko yëkkati doju tiim bi doo ko yëkkati téye da nga ko bàyyi suuf sooy da ngay julli julli gu mat waaye julli cof yonent bi nee dangay da ngay julli ba pare yàlla taxañ ko sànni la ko soo ne allahu akbar yàlla ngay waxal moo ma toog ndax nee nga allahu akbar allahu akbar mooy lan yàlla gën a màgg sëriñ bi ma bi ma yaakaar jaayanteeg moom yàlla gën a màgg président coordination bi yàlla gën a màgg député bi wala maire bi wala chef de quartier bi yàlla gën a màgg sama kopparfor yàlla gën a màgg sama jabar yàlla gën a màgg samay doom jabar ji su ne allahu akbar yàlla gën a màgg sama jëkkër yàlla gën a màgg lépp lu ma am xam naa ne danaa dee ñu yeew ma ba ma ne ngodd dem ngas ba mu xool suul ma te man rek sama jëf rek laa fay fekk sama sëriñ du ma fa fekk gisagum ngeen benn sëriñ ne bàyyi leen ma suul maag taalibe bi gisagu leen ko gisagu leen ko euh, kon boog nag nañ ànd ci yàlla wéttalante ci yàlla dimbalante ci yàlla ndax ñun ñëpp ci yàlla la ñuy mujj yàlla wax na ci alquran ne sëriñ su manul ñàkk nanga nga seet sëriñ ba nga xam ne xam na ne ci man la jóge ti ci man la jëm wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marjiukum fa unabbiukum bi ma kuntum taamaluun waaye nit koo xam ne deewagoo tëddagoo ci sa lalu dee ba sukkuraat ñëw sa jabar wër la say doom wër la ah papa doo làkk ngay gis malaaka yi te ñoom duñ ko gis salaxatil xulquum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون waaw néeg baa ngi nii sa jabar a ngi toog say doom a ngi jaaxle docteur bi taxaw ne mënatuma ci dara luñ la jox suñ la xoolee ruy nga génne ko suñ la joxee ndox nga génne ko te kat jibril azrail ñëw na wala ñamu ndaw yamu yebal ñëw nañu tiim di xëcc ruugi yow yaa ngi leen di gis gis fa nga jëm gis aljana su dee aljana yàlla nañu yàlla def ñuy cëru aljana aljana yi suñu cër nga mu wóor la ne yaa ngi génn àdduna ngay jooy sa làmmiñ damu doo mën a wax foofa su fekkee ne joxuloo yàlla sa bopp seytaane dana tëru jullit ba foofu dana ñëw wone sa jëmm sëriñ di la wax loo loo xam ne soo ko waxee weddi moo tax sëriñ baax na de waaye jox yàlla sa bopp jëkk sëriñ bi moo gën ndax yaag sëriñ bi yëpp dañ leen ci indi sëriñ royuwaay la waaye du yàlla sëriñ royuwaay la waaye du yàlla sëriñ bi yorul njariñ yorul lor yàlla moo yor njariñ moo yor lor waaye bëgg na nag sëriñ bi soo ko di nga topp ko ngir yàlla bëgg na sëriñ bi it di ànd ak yow ngir yàlla taalibe bi na ko yàlla gënal sëriñam sëriñ bi na ko yàlla gënal taalibe bi moo tax cheikh alxaaj malik radiallahu taala anhu ne audu billahi min xawfi anami wa min ridan an nafsi ham min risqi allah wa raddini bil qada rabbi musabirani ala balaika ya rahmanu ya allah waaw ma wax nag sëriñ touba nag man mawdo si nag ba ñu dajee keer nag ñuy màggal maam sëñ Touba ma def ci xasida way ko sëñ Touba hani an lakum ya ahla Touba bi yawmikum fa akrim bihi yawman bihi qadimal qutbu waaw qutbu bu mag boobu di sëñ Touba wa azim bihi yawman yatiihu bi nuurihi banu shaabi turran bal kada sharqu wal garbu فيوم قدوم الشيخ رمز كفاحنا تساقط اهل الشرك فانتصر الصحب كاني به والنور ميغي ملني سيغ توبا مانكو تك بت ميغي ملني وير كانم غا ملني وير دي لير كأني به والنور يملأ وجهه يقول إلى التحرير يا أيها الشعب ألا بارك الرحمن في الأهل بعده ليحيي دربا سار قبل به الركب فهذه تحياتي وتلك مودتي أقدمها والروح والجسم والقلب يو سنتو ودال ياك سنجا بورغو باقي لي مالا نيو واي سما جيم سما روح سما خول ماغ لين كوي جوخ نخم سودون بار بار لو رك ما دوما جور مان واي الله مالك دغلا واي شيخ تيان شريف way naa yonent bi waaye Cheikh Al Hadj Malick wax gu ma ci moom dara su ma doon taalibe na tijaan bu fanatique na dam dam dam du ma ko bëgg a def waaye wax nga ne lu Sëriñ Tuubaa day yokk nga ne lu nit wax nga ne lu Alaaji Malick day yokk nga ne lu nit ndax ñoom raw nañu jàng nañu ba raw ñëpp waaw si si si boo gis kenn mënatul raw Alaaji Malick si si si moo tax Cheikh xaaj Hadj Malick ku xam la ba muy làkk génn àdduna dafa ne ah doom man de Malick di ñëwoon na doon liggéey du ma fi bàyyil doom dara téere yi nag ñooy samay gopp ci laa doon bayee dinaa ko fi bàyyi sama njaboot su ñu ñëwee bay alhamdulilahi rabbil alamin suñu bayul tampi pour ñoom Malick bay na ba dem waaw waaw nit nit nit ñi dañ leen di woon yàlla nañu ragal yàlla waaye defe ne aljanna da nga koy am rek ku sa sëriñ gërëm nga dem aljanna ah nañ ko jeex ah nañ ko jeex ku sa sëriñ gërëm te ngërëm nga ngërëmal yàlla biig cër waaye lu ma neex def lu ma neex wax su ma dee murit tiijaan bi lu ma neex yekk ko lu ma neex yekk Cerno Ahmad Tijaan Chérif alku rek su ma dee tijaan lu ma neex wax sëriñ Tuubaa fu ñu ko tuddee lu ma neex teg ci daram sëriñ sëriñ murid bi lu ma neex teg ci daram alku rek ndax kat bokk na ci suñu charte tariqa Cerno Ahmad Tijaan Chérif ne wali yu yëpp xonk leen ne teral leen ñëpp sëriñ Saadi Touré ne mbooleem wali yu yi sëriñ Aadi ne mbooleem wali yu naw naa leen ci yàlla bu wér waaw ñëpp gannaaw ga jaayante naa ak Seexu Tijaan waaw ko defee loolu la amoon ci lu ñoo wax tabaarakallaahu xat na yal na yàlla dolli wér yal na yàlla dolli mucc yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla may ñu ñu ragal ko nañ ragal yàlla nañu ragal yàlla mooy yàlla gi bari na mooy yàlla gi bari na nañ mot nañ wottu mooy yàlla xale bu jigéen bi nekk ci biir kër baayam nañ ko yar yaru diine nañ ko yar yaru diine xale bu góor bi nekk ci penc mi na bàyyi xale yu jigéen yi ñuy doxi seen yitte ci marché bi wala boutique bi te dellu si waaye euh, les handicapés physiques les handicapés moraux ñoo ëpp les handicapés rek ku nekk yore yat wala yore pousse-pousse di dem kooku handicapé la waaye yomb na physique la waaye moral ki nga xam ne moom dafa am dafa handicapé moralement waaw jikkoom baaxatul fu mu toll xale bu jigéen bu toll mi ngi koy jéem a du defar pénc du defar jikko xale yu jigéen nañ topp ndey julli buntu Cheikh Al Hadj Malick nee borom kër gi toog ci buntu këram doom yi nekk ci lu leen neex mu naan dara laa leen mënalul ëllëg si biir daañu ko fekk ci safar mu ne ko wét ku nekk gis ko ne ko dara laa la mënalul tey waaye nit ki du jur doomam ba pare ragal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko kañ la saa di taxaw mu ne xaw ma lan waaye bokk na ci mandargay saa su taxaw an talidal mar'atu amataha aw sayyidaha ñu ne ko ah, ya laa nañ la nañ la jigéen di sukk jur jur sangam yonent bi ne waaw jigéen joo xam ne yaa matu yaa kuus kuus yi ci ëmb juróom-ñeenti sukk jur sa doom sa doom màgg tuuti rek nekk sa sang ndax ma ngay génn di dem ca bistro ba ma ngay génn bés bu ñëwee indi ñaari junni nga naan jërëjëf waay xamoon naan yàlla dina la teral de te doo gëstuwoo ñaari junni yi fu mu ko jëlee ndax tànku caaxaan la ko doxe ndax dafa joxe boppam ndax dafa ànd ak ku warul a àndal yooyu yëpp caaxaan la fa innama al umamu al axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum dahabu nit ku baax day ragal yàlla nit ku baax day ragal yàlla ku ragal yàlla doo njaaloo ragal yàlla doo naan tàngara ku ragal yàlla doo jëw ku ragal yàlla doo doo doo iñaan doo soxar nit matul waaye loo ci defit daw dellu qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian yàlla nee na euh, man du ma gedd kenn man na ma romb léegi ndaxaw maa ko yoroon daaw jéeg yàlla nee na su ma ko waxoon ñëpp tas kër yëpp tas ndax maa mënal ñëpp te ba léegi sàppooguma ci kaw kenn waaye mën na ma romb léegi ndax am li bërki dem rek sama kër la nekkoon waaye kay waaye da nga war a sant yàlla bi mu lay romb tey am situation mais mi wa kaana al insaanu qatuura yàlla nee na kooku langage la boo xam ne nit ki war na ko corriger ndax xam mën na ma romb tey salaw maa ko defaloon ni maa ko yàlla nee na du dëgg taxuma woon su ma taxoon doo ko tudd mustarshidin wal mustarshidaat yi lay ñu ngi leen di ñaanal yàlla ndax it jamono neexul te li songu lislaam ci Sénégal bari na am na ci lu mag ñi xam am na ci lu ñu xamul waaye ndaw lu am yitte te bari looy liir bari looy jàng daa xam lu bare bare bari ci loolu kon boog su fekkee ne dañu am ay xale yoo xam ne dañu leen defar taxawu leen ci wàllu diine am na solo li ci am solo rek moo di orientation orientation ndax kat ki nga xam ne mooy seen kilifa di Serigne Moustapha Sy bu Serigne Cheikh Tidiane Sy doomu soxna la te dañ na réer jàng na doomu soxla te dañ na réer jàng na déglu nag ndigalam déglu kàddoom ak orientation moom rek moo ci am solo te xam ne nag moom Serigne Moustapha moomul diine nag man bàyyam mi di rakku Cheikh Ahmad Tidiane moomuma diine El Hadj Malick moomul diine yonent bi sax moomul diine. yonent bi sax moomul diine ndax kat euh, euh, kaso bi la tey ci biir dakaar ay taalibe murid rekk fa fees Serigne Abdou Lahad waaxoogul ubbi ne génn leen. ay Tidiane rekk fa fekk El Hadj Abdou demagul ne ubbi leen génn leen ku la mënul génn ci kaso 100 bi waxuma la kaso ëllëg. sëriñ bi ñaanal ma rek nga ci man ñaanal ma te su fekkoon ne sëriñ bi moom moom danga naan ko may ma doo ko wax ñaanal ma wolof yi dafa leer ñaanal ma sëriñ bi ñaanal ma ak ah, kon kañ njëkk am na ku